wirdu jaambur nag moom nee nañu deesul jekki-jekki jël ko te amoo ca ndigal nee nañu boo jekkee jekki rekk fab wirdu wa te amoo ca ndigalul ab sëriñ bu la ko yelloo jox doo ca jariñoo bu dee wirdu maaxuus yi nag nga xam ne mooy wirdu sëriñ Tuuba moom nee nañu sëriñ Mouhamadul Amin Diop nee na taalibe yépp am nañ ci ndigal am na nag yoo xam ne moom mën ngaa jekki-jekki fab leen te du aajowoo nga cee laaj ndigal bokk na ca julli ci yonante bi julli ci yonante bi moom foo ko fekk rek mën ngaa jekki-jekki fab ko te doo ca laaj ndigal asmaullahil xusna turi yàlla yu màgg yi nga xam ne buñ ko dee wàññi day doon téeméer bu manqué benn te addis ba wax ne ku leen mokkal dem àjjana dane man ahsaaha daxalal jànna am na fu ko sëñ Tuubaa way ci ay bayit ku bëgg mokkal tur yàlla yi ci mu tegaloo moom bayit sëriñ bi moo gën a jàppandi ci mokkal gi moom it nee nañu sañ ngaa jekki-jekki rek fab ko di si ñaan yàlla di ko jariñoo di ko sikkar te doo ca sàkku ndigalul benn sëriñ ba tey al musabbahatul hashr wird la woo xam ni taxu koo gudd wird la wu yàgg ca cosaan sëñ Tuubaa nag mas na koo jox maam Cerno ne ko ku ko jële ci yow rek am texe goo xam ne ñàkk texe du ca topp musabbahaat moomu nag nee nañu ku ne sañ naa jekki-jekki jël ko te du ca laaj ndigal ba tey nee nañu xeeti ñaan yi kat bala nga caa jariñu da ngay xam maxnaama te ba nga koy jàng itam nga am ca teewlu mooy tax nga jariñu ca ba mu des nag xasbiyallahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul xarshil azim moom abu daawud dafa nettalee ci abu darda mu ne ku ko wax juróom yaari yoon ci suba ak ci ngoon faw rek yàlla taxawale ci lépp la yitteel fajal la ko moo xam bi nga koy wax xam nga la muy tekki ba noppi muy dëgg ci yow wala da nga ko wax rek waaye du dëgg ci yow li muy tekki nag mooy doyloo naa yàlla yàlla rek ay buur man day ci moom laa wakiirlu te it mooy boroom aras gu màgg gi kon mënees na koy saxoo suba juróom-yaari yoon ngoon juróom-yaari yoon ak alxuraan alxuraan ñu ngi ko weesu woon ci gannaaw xam la muy tekki ak ñàkk xam la muy tekki du tee boo ko jàngee rek dal cay jariñu ñu bindal la tuyaaba ja ak julli ci yonante yi moom itam nee nañu mat naa bari la saxal lool niñ ko weesu woon ci gannaaw ndax li ci ëpp dara du ko faral di yàq lu bokkut ak yett yooyu nag moom mel na ne faaw rek danga war a jéem xam maxnaama maanaam la muy tekki ba noppi tam boo koy jàng nga teewlu ko boole ja tumma ishtiqaaquhu topp ak xaram ataa dikk na minal wóróodi bàyyi ko ci wóróodi bi firi rooti fil miyaahi ca ndox ya yaa fataa yow ascam fa kullu wirdin bépp wird yóoridu dana rotal al murida taalibe ba li xadratillah jëm ci péewi yàlla ba walañ yaxiida te du jeng sawaa un way yamoo la intama moo xam askanu na ilal jilaani jëm ci abdul xaadir al jilaani aw intama wala mu askanu li ahmada jëm ci ahmad attijaani muy Cheikh Ahmed Tidiane aw li siwaahuma wala jëm ci kudul ñoom ñaar minal aqtaabi ci mboolem xutuba yi mooy kilifa yu mag yooyu idi ngir kulluhum képp ci ñoom xatxaan ci lu dog maanaam ci lu amul benn werante xala sawaabi nekk na ci ak jub te kulluhum képp ci ñoom it mooy kenn ku ne ci ñoom yadduxoo da daawoo almuridiina taalibe yi ilaa taaxati rabbil xarsi jëm ci topp buurub aras xaytuma jalaa fu mu fi feeñe bil istiqaamati ànd ku jub fala tasxar kon bu reetaan ahadan kenn minhum ci ñoom wala tunkir te bul weddi xalihimoo ci ñoom abadan mukk dañuy def baat bu feeñ ci jàngaleenu lislaam baat bu ci feeñ dañuy wax ba lislaam ñëwagut bañ ko ciy jëfandikoo ana dañ ko daan jëfandikoo ca cosaan ñu ne bu dee al wirdu day moom daa bàyyi ko ci warada almaa maanaam dem na rooti ca ndox ma nga xam ne wirdu ci boppam day taxa àgg ca péeyu yàlla ba root ca naan ba màndi nga xam ne wirdu wu ne day yóbbu taalibe ba ba mu àgg ci péeyu yàlla bu sell ba aajoom daldi faju moo xam moo xam day wirdu xaadir te mooy wow Cheikh Abdul Xaadir al Jilaani wala muy wirdu Tiijaan muy mu Cheikh Ahmed Tiijaan wala muy sax wirdu keneen ci kilifa yu baax yi ni ki asaadili ñoom ñëpp nee na dañoo nekkoon di ñu taxaw temm aw ci sunna na yàlla bëgge teg seen tànk kem seen kàttan feeronte bi tegan ay tànkam ak saxaaba ya nee na ñoom ñëpp kenn ku ci ne danga awoon ca yoon wa te di ca awale ñeneen kon na nga moytu reetaan kenn ci ñoom mbaa ngay weddi kenn ci ñoom ndax nee nañu ni yoonante yi mel di genn càll la nga xam ne koo ci weddi day mel ne weddi nga yoonante yépp ba tey wàllu yi noonu lañu mel mën nga ca am féete ndax féete mënta ñàkk waaye du tee nag nga jàpp baaxuk ñépp ñépp fonk leen te yàlla rekk tax boo xasee yore wérdu sëriñ bi moom yor nga wérdu yëpp yëpp ni nga xamee ne moom la alxuraan ëmbe mboolem la nekkoon ci téere yi ko jiitu woon noonu la wirdu sëriñ bi ëmbe mboolem la nekkoon ci wirdu yi ko jiitu woon wa asluhu cosaanam moom wirdu al waxyu mooy waxyu awil ilhaamu wala ak yenkiwal yaxusuhu dana ko jagleel assalaamu yàlla mi aji mucc ci ayib bi ahlihi ci ñoñam wala ci aji yelloom in kaana dem nekk na wax yen di ak wax yu faxwa moom li nabi yi ñeel na ab yonante aw kaana wala mu nekk ilhaaman di ak yenkiwal falil wali yi kon ñeel na wali yu wirdu moom nee na ci suñ borom lay bàyyi ko ñëw ci ab jaamam bu dee yonante yàlla da ko koy wax yu bu dee wali yu yàlla da ko koy yenkiwal mu xam ne yàllaa ko ko yenkiwal yenkiwal mooy yàlla def ko ci xolam te it dana am firnde ju ko wóor ne yàllaa ko def ci xolam muy wérd woom ko jagleel waaye nag wax nañ léegi ne la wérdu sëriñ bi moom ni mu ko waxee moom ci boppam foofee ci sarsaara la ko ko yonante bi joxe ci njéeméer ci jàkkaarloo nelawul deful dara bisaatuhu ab laltaayam kitaabuhu mooy téeréem ba moom yàlla al munazzalu bari ba ñu wàcce mu farriqan mbir mu muy aji teqali diggante dëgg ak fen wal asaru ak addis ba al musalsalu ba di buñ càll la kullu waliyin bépp waliyu bu tashabbufin boroomuk jàppandu la abadan faaw bi day li man ci mbiccum ka nga xam ne arsalahoo yebal na ko alxaqu yàlla mi dëgg al ahadu mi kenn wir di yépp yam wu ci nekk rek nee na alquran ak hadis ñooy nekk laltaayam nga xam ne kon wir du ne rek mi ngi sukkandiku ci alquran ak alxadis wir di yépp itam ñooy bokk lu ñu tëddee la cay jëkk ca wirdu wa day nekk al xadd bala maanaam muslu seytaane ak nu mu ca mën di ñëwee la cay topp di al basmala maanaam tàmbalee turu yàlla tudd turu yàlla ak nu mu ca dikkee teg ca nag ay laay yoo xam ne day bokk ci alquran teg ca yu xeetoog xasbunallahu wa ni amal wakiil ba xasbiyallahu ak rek daal num ca dikkee istixfaar topp ca sàkku njégal ak it nu ca baat ba dikkee laa ilaha illallah topp ca ak num ca dikkee julli ci yonante bi topp ca ak nu mu ca dikkee gannaaw ba nag ñu teg ca ab mujjantal boo xam ne moom lañ koy daaneele nga xam ne wird yépp moom yii mooy doon seeni cosaan du tee nag wir du ne am xeetu jagle goo xam ne yàllaa ko ko jagleel def ko ca sëriñ basiru nag ci xasida gi mu taalifoon doon ci waxtaani wirdu sëriñ bi te andi woon nañ ko ci irwaa'u nadim ba mu mat na ko sëñ mat laamin andi woon leeral na ca ne sunu boroom dafa fab mboolem jagle yi nekkoon ci wirdee ca des def ko ci wirdu sëriñ bi nga xam ne boo ko yoree rekk yor nga wirdu yépp yépp mel ne boo yoree alquran yor nga téere yi yàlla yépp yépp yépp yonent bi nag moom la yàlla def muy buntam nga xam ne la muy jëmale ci doomi aadama yi da koy jaarale ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam looloo tax nag wali wu ne mi ngi jàppandu ci yonante bi yonante bi dox digganteem ak boroomam yonante bi itam wali yooyu lay dénk yoonam wi lay dénk sunnaam si ko defee ñu koy aar di ko taxaw di ko wan ña ca bëgg aw bañ xam fa ñuy aw nga xam ne kon wali yi ñooy wecci yonante yi moo tax mu teg ci fama loo xam ne yëf yi dana dikk moo gisata nabi yi mbir mu muy moo gisab ab yonante ya joosu dana dagan maanaam dana jaadu mën naa am fi karaamatil wali yi ci xarbaaxuk waliyu li annahoo ngir naka waliyu waarisuhoo mooy aji doon yonante fal ambiyaa yonante yi xujaju rabbinaa ñoo di lay sunu boroom alal xalqi ci mbindéef yi yen na nga wattu wal awliyaa wali yi adillatu tasxiixi ñoo di tegtali wéral li diini yi ñeel diineem jë wa sidqihi ak dëggoom ga mbaa dëgga lëm ga as saxiix gay aji wér lu yàlla defal nag ab yonante muy mu'jiza ba tax ñu gëm ko lu mu réere rekk mën na koo defal waliyu mu tudd karaama te bañ a tudd mu'jiza ndaxte waliyu mooy donn yonent moo koy doon ci xam-xam ba ak woo jaami yàlla yi jëme leen ci yoonu yàlla yonante yi ñoom la yàlla yebal ba nga xamee ne bu ëllëgee kenn du ko mën a lay ne ko xamul woon saw yoon ba mën caa aw bi mu xësee yónni ay ndaw rekk wow lay moom fàq na ne su ko defutoon ñu ne ko law laa arsalta ilayna rasulan fanattabiha ayatika wa nakuna minal mu'minin kon nag bi mu xasee yónni ay yonante wow lay moom fàq na kenn du ne gisuma woon ndaw lu ma woon yoonu yàlla nga xam ne mu ujji saat yi nga xam ne moom la yàlla feeñale ci ab yonante day tax ñu gëm ko xam ne yàllaa ko yónni ba bu ëllëgee kenn du mën a lay ne gisuma woon ndaw lu ma wan yoonu yàlla karaama yi nga xam ne nag moom la yàllay may wàllu yi dañu wax ne lu mu gisaat tollu rek karaama mën na naa toll karaama yooyu mooy tax ñu xam ne wàllu yi kat diine ji mu nekk di ci jaamoo yàlla diine ju wér a wér la ndax bu fekkoon ne nekkutoon diine ju wér li ko ci yàlla may du ko ko ci may kon wàllu yi ak la leen yàlla defal day nekk rek tegtal yu wóor a wóor yi wane ne diina ju wàllu yi nekkoon di ci jaamoo yàlla diina ju dëggu la ju wér la ju jaare woon ci yonante ba agsi ci moom nag mu taxaw ca taxawaay bu mat sëkk ba am ca la mu ca am ci misaal rek sëriñ Tuubaa mi taalif téere bii tegtal la ci ne diine lislaam diine ju wér la ju yàlla yónni woon yonante bi mu jëme ko ci ay jaamam ba àdduna tukki ndax bu ji sëriñ bi fa mu jaar ak la mu daj ci digganteem ak ay noonam ak la ko ca yàlla cërale bañantub tey rek tegtal la ci ne diine ji sëñ bi jàpp mooy lislaam diine yàlla diine ju wér la ju mu gërëm la te du nangu jeneen diine ju bokkut ak moom ndegam nag karaama day nekk lu xotti baax nga xam ne gisuñu muy faral a am ba bu amee yéeme te it ni mën a feeñe ci waliyu noonu la ko seytaane mën a feeñale kon niñ koy xàmmee mooy jëmm joo xam ne gisuñu mu xattu sharia ci genn genn wet rek lay feeñ ci moom ci lu xotti baax mënees naa jàpp ne karaamal gu ko yàlla defal bu dee nag koo xam ne gis nañ muy xëtt sharia te teewul xeeti xar baax yi di feeñ ci moom ñu teey ci ba xam ndax am na xeeti wàll yi yoo xam ne la dalan Muusa ci Xadir alayhi salaam mën na am ci ñoom maanaam jëfe ci zaahiru loo xam ne moom yàlla lañ ko sant te boo ko dee xool ci balaasu shariha dee su ko sañ loolu nag ku jàng suratul kahfu gis na nga xam ne moom la Muusa alayhi salaam jëflante digganteem ak xadir loolu feeñ na ca te nee nañu xadir wax ji gën a wóor bokkul ci yonante yi nga xam ne kon ku ñu gis mu xëtt shariha te teewul lu mel ni xar baax di feeñ ca moom bu dee sunu jamono ji nga xam ne lislaam amul àtte di ko taxawal ci kaw ñépp dañ koy bàyyi yàlla rek moo xam digganteem ak boroomam waaye nag bu doon jamono ja nga xam ne moom lislaam mi ngi dox ku xëtt shariha moom faawu ñu awale la ca te ña ko cay awale itam duñ ca am daani yàlla ndax loola la shariha rëdd ñoom nit yi yàlla yi sax jàppewuñu karaama lu am solo genn karaama rek lañ jàpp ne mooy karaama gi féete kaw ci mboolem karaama yi te seytaane moom mënu ko mooy rek bañ a jege ak mooy yàlla sax ci sunna jub xocc bañ ko wàcc ci genn wet loolu lañ jàpp ne mooy karaama gi nga xam ne mooy karaama gi gën a rëy te saytaane moom mënu ko sëñ bi nee na woon karaamatul waliyi an laa yaasiya fi zahirin wa batinin in xusiya dana wax sax ci mujjug téere bi ne am na wali yoo xam ne àgg nañ ci àgguwaay ba te doo gis genn karaama benn xar baax feeñ ci ñoom am wàllu yoo xam ne àggaguñu ci àgguwaay ba dëgg-dëgg te teewul ñuy feeñali karaama dana wax foofu itam ne karaama dëgg-dëgg moom mooy rek al istiqaama mooy fa axbaru bi ann al istiqaama nihaayatu salaaxi wal karaama fa ambiyaauhu yonanteem yi moom yàlla taxalaa kawe na xosimoo musaleef na leen wal awliyaau waliya xofisoo watoof na leen wa kurrimoo te teraleef leen wastaraka bokkaal nañ ñoom ñaar mu yonante waliyu fi xismati rahmaani ci musaluk aji yërëme ja kama nasa niki yaxale bi ci loolu dawal xirfaani waroom xam nga laakinama xismatul ambiyaa yi waaye nag muccuk yonante ya waajibatun aji war la bi xaksil awliyaay ci safaanub waliya haza lii maqaalu sayidi mooy waxi sama sang almuxtaari te mooy sidi muxtaar fil kawkabi alwaqaad ci téere bi tudd alkawkab alwaqaad laa tumaari bul werante alkawkabu alwaqaad turu téere la day firi biddiw bu leera leer buy tàkk-tàkk alxismatu mucc googu ñu wax wala musal lañ ci jublu rek mooy bañ a jàdd yoon aw rekk ca yoon wa bañ a def lu yàlla sib mbaa lu yàlla araamal loolu nag nee na yàlla may na ko yonante yi may ko itam waliyu yi waaye nag am na wuute lool ndax yonante yi ñoom ndegam suñu boroom daa wax ne samay ndaw lañu fu ñu aw rekk aw yoon la moom moo leen di sàmm ba lu yàgg-yàgg benn yoonante du jàdd yoon def lu yàlla sib mbaa lu yàlla araamal ndax ndegam su jàddee rekk ñépp topp ko ca jàdd ga te mel ne kon yàlla moo aaye jàdd ba noppi wëlbatiku digliwaat ko loolu mënta am wàll yi nag moom it yàlla mën na koo may mucc ci jàdd yoon ba mu dellu ca boroomam waaye nag yàlla mën na koo nattoo nag moom jàdd yoon nga xam ne ab yoonante moom du jàdd yoon mukk mukk waaye wàll yi nag moom du ñëpp la yàlla may ñu mucc ci jàdd yoon daa am wàll yi yoo xam ne yàlla da leen a digal ñu woote ba tey ñooñu dañuy aw rekk ci yoon wa duñu ko jàdd benn yoon ndax ku ñu wooteeloo ne la foo aw aw yoon la faaw rekk ñu sàmm la ba doo wàcc yoon wa bu dee wàll yi woo xam ne nag yàlla joxu ko ndigalul woote mën naa am mu feeñal ci zahir loo xam ne dëppoowut ak shariha mu delluwaat ci lanu waxoon ne bu dee jamono yoo xam ne shariha mi ngi dox faaw ñu awale ko ci kawam bu dee jamono yoo xam ne nag shariha doxut ñu bàyyi ko digganteem ak boroomam te bañ koo roy ci jàdd yoon googee wa in agasta ndéem jàpp nga alwirda wirda faltu bajjil na ngay màggal umoo raxoo ay mbiram tanal kon nga am xayral masaaya ngën ji ngëneel ya boo xasee jël wird nag moom nee na na nga ko fonk bu baax a baax ndax rek lépp lañ cee séentu ci njariñul tey ak ëllëg nga am ko ca amal la si ndaal ka nga xam ne ankara weddina maqaama wirdin maqaama wird mustahsi an mbir muy aj yejju yejju mooy reetaan bi ci wird li kurhin ngiruk sib was dira in ak ngiruk xeeb kooku fa boo jaxaalit boroomuk réer la kama nassa ni ko yaxale alxalamu xalam ba maanaam boroom xam-xam bu siiw ba ibnu xata illahi te mooy ibni xata illah fi matnil xikam yi ci yaxub xikam koo gis nag nee na muy sikkal wird bi ko waxee mu di ko reetaan di ko xeeb xamal ne kooku day ko xamul rek nit nag lu mu xamut dal di koy noonu dal di koy woyofal ibnu xata illah noonu la ko waxee ibnu xata illah nee na koo gis rek muy sikkal wird di ko weddi xamal ne ak ñàkk xam rek moo ko lal man lam yu dim ku saxalut chey an dara minal awraadi ci wirdi yi mu dayixal waqti mbir muy aji sànk waxtu wa xala tamaadi ci ak sax falaa lahu deddi ko ñeel yow ma yu jaasaa ci bis ba def na fay annaasu nit ñi illaa waraamun ndare aw naqar wa jawan ak njàqare wa baasun aku ay wa baasun mooy cosaan waaye way yoo tax ñu def ko wa baasu fala yuxafifu du woyofal umooral wirdi mbiri wird si waa xasuudin ndari ab añaanaakon dii xilan kuy borom ak bañeel wa xiqdin aku coxor wala noonoo li ëpp ci mool yi si waa xasuudin doo xilan lañ koy def waaye daa mel ne dii xilan moo gën a yelloog xasuudin ji ku jàppul wenn wird xanaa rek bàyyi waxtoo muy jàll noonu cig neen kooku day nee na bis bu taxawee bis penc dana ko rëcc lool du fa am lu may aw naqar ak njàqare aku ay dana rëcc lool nag lu teewoon mu fab wird ni ko nit ñu baax ñi fabe bu gisee lañuy defal ña faban wird yi moom mi ko fabutoon di ko reetaan ak weddi day dana amu naqar lool am njàqare lool am fa itam ay aku tiis lool lool ku tilima tilim xol te añaan daal te soxor moom rekk mooy woyofal mbiri wërd fa kayfa yustaxqaru naka la dee fi xeebe zikrullahi turu yàlla adaamahoo mbir moom saxal na ko alfataacam sa bila tanaahin ci lu dul daytal nee na wird moom foo ko fekk tur yàlla la woo xam ne jaam bi da koy sàkkal waxtu bu ci àggee rek def ko loolu nag nee na ku yeewu dara dara doo ko xeeb fa kullu man képp koo xam ne lam yetta àddëb yaroowut yaroowut zamanan ci jenn jamono xalaa ya day cheikh yin ci ñaari loxo yi ab sëriñ fayal xaa dana taseeg mi xanan ay coona li ànd na man ngir nag koo xam ne xadima ñàkk na cheikhan ab sëriñ murshidan bi aji jubale fa cheikhuhu sëriñam a cheytaanu mooy seytaane xaytu xas xaytu xasada fu man di jublu sëriñ Tuuba ak ñu bare bare ci sëriñ si dañuy wax ne boo gisee ku la mën a teete ci yoonu yàlla kon na nga moytu di jéem a aw sa yoonu bopp ndax dem ak sa bopp moom day lu jafe-jafe soo wutu rekk seytaane mooy jiitu di la womat te doo ko yëg moo tax mu ne ku amul ab sëriñ bu koy tegtal yoonu yàlla seytaane mooy daal doon sëriñam fekk na sëriñ ni mu ko waxe moom sëriñ bi ñetti xeet la sëriñub jàngale ak sëriñub tarbiya ak sëriñub tarqiya sëriñub jàngale moom mel na ne jamono ju nekk dana faral di jàppandi ay sartam bariwul noona mooy rekk mu am xam-xam bu wër bu tegu ci kaw alquran ak sunna am itam làmmiñ wu leer woo xam ne bu lay leeralal mu leer fi yow nañ ay waxam du jamtalu ay anami anam ba ngay naatable naa lii la bëggoon a wax ak lii la bëggoon a wax bu ca boolee nag maandu goo xam ne lu mu xamut ne xawma ko yebal la ca kum defe ne moom xam na ko loolu rekk moo di sarti sëriñub jàngale sëriñu tarbiya ak tarxiya moom dana faral di jafe lool lool rawante na sunu jamono ji sëñ bi moom dafa delloo taalibe yépp yépp ci ñu tënku ci yett rek bañ caa boole dara dara mooy sax ci gëm looye santaane yàlla ci kaw suuf te yàlla rekk tax loolu la tudde boole ashariha ak alxaqiqa dénkaane bi jëkk ci mool bi cheikh abdul ahad boole woon sëriñ ba daa wax ci njëlbeen ga ne man mi bind araf yi day mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci man lii laa leen digal bu ñu ko sàmmee muy seen njëriñ bu ñu ko sàmmut bu ci wàññan amee ci ñoom lay dellu daldi ne bu leen jiyoonteeg asharixata almutahara te boole ca la ngeen man ci